bikum Mouhamed Cissé américain taalibe Baye Niass ba ñu reyoon ca Kaolack ndangaan enquête ba xibaar yu bees juddu na ca libération moo xamal ne ñaar ña jàppoon kenn ka moom fi mu toll nii sikki nekkut ci ne bokk na ci ñi ko rey kenn ka moom léegi njort yu xóot wane na bokk na ca ña ko rey yaaw seetal keroog bi ñu reyee Mouhamed Cissé sandarma yi fañ koo teg loxo dem këram ca biir néegam ñu fekk fa yére boo xam ne fa taq deret ñu laaj ko na ko waa deret ji taq ci sa mbubb yi moom fu mu bàyyee koo waaja na leen faham rab bu ma rayoon moo ci taq sandarma yi jël deret ja yóbbu ko ñu amal analyse kër docteur xool gis na deret jooja deretu Mohamed Cissé américain la yéene kaay bi ne kon kay waa dugg na nag enquête ba nag mu ngay continuer ngir teg loxo mbooleem ku ca dugal sa loxo ci faatug américain bi ni mel ngir bëgg lépp leer la laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na avocat coon sekki ak avocat général ba ak attekat ba wecceeku wante ay kàddu yu tàng jir les éco yéene moo ñu ko xamal wal fajiri yéen a kaay naateb coon sekk ba kay tàng la def dàq nañ ko nag ba weeru mars wii di ñëw man ma ñëw ak yéen ci coowal faatu bintu géy doomu maam maxtaar géy bu jamra mooy xale bu jigéen bi ñu waxoon fa réeroon tey nag nday mbi ligi moo waxal boppam ne mësumaa réer maa fen sama baay ndax sama baay fa mën a laajte waaye lii dëgg nag danaa leen ko wax yéen policiers yi ayaw seet tal sama far laa xàndatoon moo ma xoo na ma nañ daje barab sàngam ñu dem fa dugg ci benn auberge nekk fa heure bi gaaw lool ndax bii trois heures du matin ni jot yëguñ ko sax ca lañ xam ne mënul tuñoo ñibbi ñu mujj fanaan fa ca auberge ba nag yéen bi na ko kon kay yéen da doon féetee saint valentin mu biñ paree nag ma xëy dem sama kër xarit yaayu sama xarit ba ñoo ma delloo si maag sama far wi nag waxtaan nañ waxtaan yu kii rek waaye nag defuñ leen lu kii de pour muy leer ci seen bopp yi rek yéen kaay bi ne ndax boppam moom leer na est-ce que ko càmbaree résultat yooyu dana génn tey génn gut ci seen coow la mooy APS këru taskatu xibaar gi ci Sénégal waa grand place yéen a kaay moo ñu xamal ne juróom benn fukki million ak juróom moo naaw mër réer ci ngelaw li ca kaw taabulu directeur ba Thierno Birahim Fall ba tax yéen a kaay bi di laajte ne waa kan moo sàcc million millions yu APS yéen leen joxoon ci campagne bi le quotidien yéen a kaay mel ni ko naan ko man de xaw ma ko mënu ma cee tontu li ma mën a tontu daal mooy waa BAD banque bi yor wàllu développement ci Afrique ñëw nañ fii Dakar ngir amal càmbar lañ projet njiitere Macky Sall yi ci plan Sénégal émergent bi xool ca jaar yoon ak la ca jaarul yoon yoon wa njiitaram Macky Sall jël moom ci jamono jooju mooy mu ma ngi fay xamal nganu ñaari fan la solo yéen a kaay ñi ko xamal li mu ñu xamal moom source ay yéen a kaay mooy Famara Ibrahima Sagna ña muy liggéey est que ak tiitaanga waru cee xam waxuñ la ëpp waxuñ genn wàllu million nga jot waaye ña koy xelal ak doxalin ba mun naa jur gàllankoor de ci wàllu dialogue bi source ay yéen a kaay ñi ko xamal si du quotidien na ko dialogue politique boobu nag tey fas yéene nañoo amal ndaje mu ama am solo waxtaane ay tomb yu bëri tënk ko faxe nag amal ci cuboo moo xam ci wote yi di ñëw kañ lañ koy def maanaam élection locale yi ak naka la ñuy wotee fa ñuy fal maire directement ku ëppale xob yaay nekk maire wala indirect wala tappale yooyu rek wala wote présidentielle yi bulletin unique wala ay bulletin yu bëri naka noonu arrêté Ousmane Ngom bi ak yeneen yu ñu war a tënk tey nay laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na xalifa Sall ci ak tekki-tekkaaral la nekk bañ ko génnee kaso daal ba léegi mu wër réew mi seeti ay mbokkam ak sëriñ si ba léegi kenn déggatu xalifa sàll wax dara lu xew ci réew mi fanaan tekki rek laa yéen a kaay ne waa lan moo waral loolu am ñu jàpp ne ay pexe la ci wàllu politique xam ñeneen ñu jàpp ne fay bañ a wax jox ngàndaay ay noonam kon nag nana tekki rek ndax ku ne tekk rek tekk war la yoon tàggat yaram Dortmund Paris Atlético Madrid Liverpool tey bu huit heures ci guddi jotee ñaari jongante yu saf-sap jàpp huitième de finale ligue des champions stade yéen a kaay ñu ko xamal record yéen a kaay na ko Sadio Mané ak waa Liverpool yi ñu ngi ci danger de ndax Atlético du ñeexub ñebbe bu leen leeree rek muy seen jàmm mel na ne nag jàmm xamatut diggante Yaxya Jóob Yékini ak waa CNG bi a yow seetal xam nga moom nee nañ CNG la bokk bu ñu wootee réunion du dem te léeg-léeg bu waxee ay kaddu fay safaanoo ak yu CNG mel na sax ku leen di attaqué ba tax sunu làmb yéen a kaay ne foogu leen ne diggante ba moom jeex na li war a jeex Sénégal nag ndax baaxut mooy li am ci hôpital yi hôpitalu Sénégal yi bu ñu fajee ba pare mbalit ma ñuy fajee wala soxna su am doom xand ba wala kuñ dagg ay cëram ak yu demee noonu daal mbalit moomu fañ koy def danger ci de boo mooy tuut mën naa jur musiba naaru laay ci réew mi ay jàngoro yu garaaw lay joxe ndax yenn hôpital yi fañ koy conselé glace ko mujj suul ko xanam gañ koy seeree daal catastrophe la nekku lu mucc ayib de ba tax l'observateur xëy di artu ak a dànkaafu ndax xoddeeku ca ba nga lakkaleegut vox populi na ko may ma ma wax la ne xam na beneen sëriñ daara bu ñu tuumaal ne faray taalibeem allah yëf yaa nga diiwaanu Louga taalibe bi daal fo tëdd lalu hôpital nekk ci diggante dund ak dee ci la gaaw wax ay waajuram na leen sama sëriñ daara moo ma dóor dóor yoo xam ne moo tax ma ñëw hôpital taalibe ba Habibulaay Kamara la tudd donte bàjjan ja nee na nañ ci teey d'accord gud na sëriñ daaram moo ko rey waaye ak lu mu ci doon hubbi nañ ca enquête ni wob taalibe ba yóbbu nañ ko ndakaaru autopsie ngir xool ndax ay dóor ko rey wala boo yàllaa ñëw rek